min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim yéen mbokku taalibe yi nga xam ne daje ngeen ak man ci bés bu tedd bu màgg bi di ma interviewé di ma laaj lan mooy solos bés bi li ko waral ak ñaata yoon lañ ko def maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen liggéey tey ñaan yàlla seen liggéey bi yàlla barkeel ko ba ngeen am ci lu sut seen njort ci barke bés bi man nag maa ngi tudd Ndiaga Ndiaye di taalibe sëñ Moutalla Mbacke mu sëriñ Fallou balaa may wax lenn la ma koy ñaanal mooy yàlla guddal fanam te may ko wér ak wérle defal ko taw tawféex ak taysiir defal ko saaratu daaray ni moom ak képp ku mu bokkal sëriñ Fallou ak lu Mbacke gépp ak lu paaleen gépp euh, li ngeen ma laaj nag ci solos bés bi dafa nekk bés boo xam ne mun naa ne bii mooy dix-neuvième édition

Mourtada Mbacké Falilou mu may jàppale durant dix-neuf ans yi may taxawal bés bi yëpp xam naa ne lu ci baax moom la lu ci am réussite moom la lu ci yokk moom la may dellu rek di ko ñaanalaal gudd fan ak wér ak wér le ndax day sama yaakaaru àdduna ak bu àllaaxira te yàlla tax euh, yàlla dogal na ren dafa am ngant moo tax teewul ngant googu am ni mu ko ni mu ko ni mu diisee woon ci moom lenn rek la ko compensé mooy dafa yebal njabootam jépp taawam jiite ko ak soxnaam di suñu yaay ju baax ñu ñëw ànd ak ñun ci bés bi ñëw ci njëwin boo xamante ne loo xool ci ñoom sëñ Mourtala rek ngay gis kon moom jëmmam gisuñu ko fii waaye jëmmam mi ngi fi ndax bàyyiwuñu benn yoon doon koo xam ne tamit képp ku jëflanteeg moom du la woon boppam mukk ñun ñëpp yàlla rek la ñuy woon teg ñu ci siraatal mustaxim di ñu gindi di ñu woon nan la jullit war kon li tubaab naan guide spirituel moom mëte na ko ci wet dépp euh, loolu nag du ñu ne lu ñuy bett ci la moom lu ñu bett ci moom la ndax kuy sa waajur ñu ne Serigne Fallou Mbacké kuy sa ñu ne soxna maam Juma Sey yal na leen yàlla dolli leer loolu kooku mënul mel neneen du dul noonu ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom bi dimbali ko dëbb ko kattan ak wér ak wér le ba lépp lu mu bëgg a liggéey ci yoon bi mu matale ko bi ci des képp koo xam ne bokk na ak moom askan muy góor di jigéen mag ndaw ñoom ñëpp ñëw nañ wuy si ñu wuy bi ñu wuy si nag liñ leen ciy ñaanal mooy jeego buñ ci def yàlla na ko suñu borom def ay yiiw ñu yàgg ànd ak ñun di ko def ñu ngi leen di gërëm mbokk gi yëpp mu am ci nag lu spécial ci bés bi ndax le 19 màggalu da daaru salaam la te ñëpp xam nañ ne Serigne Touba bi mu jógee ci liggéey bi nga xam ne moo ñu tax ñu am xel mu dal tey ak ëllëg fu mu jaar dafa jaar rek dem mais daaru salaam la wàcc wàcc boobu mu wàcc daaru salaam moo ñu indil jàmm ji ñu am tey kon bu ñu jëlee le 19 mu tombeek Daaru Salaam ñu defee ko fii Médina dañuy daal di gis ne moom Serigne Mourtala Mbacke Fadilou Serigne Mourtala cër na ko ci liggéeyu Daaru Salaam bi ndax lii moom mën naa waat ne moom rek moo ko am waaye nag du ko jomb ndax melokaanam lu mu bëgg Serigne Fallou dina ko def Serigne Fallou def na ko ci xolu nit ñi sigil na ko ci yoonu murit sigil na ko ci yoonu lislaam ba ñëpp jox nañ ko cër kon kooku man du ma mënuma wax ci moom ndax dafa am fu ma toll tollu na ma foo xam ne mënu ma ko sax expliquer nit waaye solos bés bi am na ci tuuti nag luñ koy luñ ci bëgg a dolli xam naa yemale ko foofu mooy ne sama ñaari waajur muy sama ndey ak sama baay dañoo génn àdduna Serigne Fallou dugal leen àjjana won ma te loolu ni koy misaale mooy ku gëm saayir weddi baatin doo nit ci anam boo xam ne dama koy gis ba fi ñu toll dama koy gis samay waajur yooyu nag ñoom ñoo sàkku ñu santal leen Serigne moo waral bés bi li ci biir yëpp ñu ko wax waaw waaw programme bi ni mu tëdde mooy lépp lu ñuy askanele Serigne Fallou alxuraan a ciy jiitu jàng nañ ci ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett muy arafu Touba biñ ci jógee xasida yu mag yëpp muy nuuru daaray ni taysir asir xasida yu mag yëpp bu ci nekk jàng nañ ci li mu jëy sun 313 boole koog togg ay ñam di jox jaami yàlla yi ndax sëriñ Pawlu da daan wax ne julleeg woor natt asaka ak lépp lu ci nit def sa bopp nga ko defal waaye jaamu yàlla dëgg mooy jaamu yàlla ci biir jaami yàlla yi foofu la secret bi ne kuréel yi fi ñëw bari nañ buñ ko nattee ëpp nañu juróom-ñett ba jëm juróom-ñeenti kuréel ah bari na wakaanaa ñoo ko ubbi daay daayira Lansar jaar nañ fi daayira euh, xuyóor mu xaram jaar nañ fi rajaskat yi tamit bari nañu buñ ko naree lim day gudd mais mbooloo mi fi jàng tey bari nañu sant gi may sant dama ciy jiital yàlla suñu borom mi ma def may doomu aadama di jullit di sant sama ñaari waajur yi ma tett ci lislaam waaye sama àdduna ak àllaaxira cheikh mouhamadul a mbàkke fàllilu laa koy sante waaw loolu mooy li am jërëjëf jërëjëf mbaay mbaay njaga sama sama sama rakk la suñu ñaari waajur sama waajur bu jigéen moo namp jox way juróom jigéen mu nàmp maanaam sama doomi ndey la waaye nag yàlla dafa def euh, ginnaaw mbokk ak xaritoo ndax mbokk mu ne dafa am xarit euh, dañoo bokk Serigne Touba dañoo bokk yaakaar Serigne Touba ah donc man damay wax sax ci sama njiit leenu njiitalu kàddu damay njëkk a sant Serigne Touba mi nga xam ne nii. moo ñu dooleel ba tey mbir mi egsi fii mu egsi ndax wax dëgg yàlla man dey mën naa seede xëy na bu ñu bokkuloon dara doon ñaari bokki taali ñaari bokki taali bi rek Serigne Touba jox nañu boole nañu loo xam ne nii mënuñu koo jeexal waaye nag dama bëgg a maa ngi leen di seedeel yàlla nekk njaga bi muy jébbalu ci sama kanam la euh, yàlla def na bi muy sumb lii bés bii muy santam gi nga xam ne moom la dëgmal di ko sant sëriñ Fallou fu mu toll at mu nekk mu di ko def mu ngi ci euh, fukkeelu yoon ak juróom-ñeent ah bés bi nag li ci gën a yéeme dafa tombe ak màggalu Daaru Salaam te ku nekk xam na ni màggalu Daaru Salaam sëriñ bi mag bi bi mu jógee géej Darou Salaam la wàcc fa la wàccee fa la wàccee ne waat naa wàcc naa wàccaale képp ku ma yaakaar tey ëllëg mu tombeeg bésam bii muy 19 loolu du hasard ah li ko ko may nag mooy pasteefam moom ndax euh, ba muy door lii cantam gii bésam bii ba mu koy door boobu gënoon naa metti metti woon na lool Lol, lol, euh, c'est pas évident Lol, bon ci meun nañ ko teunké nonou ah ah euh ak deggom ak bëgg gu bëgg Touba ak ci engagement am ak talibem ci may à travers euh, Ndiaga man damay gis ne ci li ñuy wax naan mbirum Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am lépp loo ci engage boo àndee ak dëggu rek ca kaw ci kanam rek lay dem Ndiaga nag firnde na ko euh, wallahi ay mbiram firnde na ko ndax ba mu ko sumbee ba mu ko sumbee door ko ba tey ca kanam rek lay dem de am daloogul ginnaaw at mu nekk rek mu ñëw rek gën a yéeme ba ba ba ñu bàyyi. ah xanaa ñi koy ñaanal moom yàlla dëgëral taxawaayam dëgëral ko dolli koo dëgëral mu di ko def at yu baree baree bare baree baree bare ah tey ñun képp koo xam ne kii mbokkam nga ci néegu ndeyam néegu kër ndeyam baayam am nga fierté bu rëy am nga mu rëy ndax nag wax dëgg yàlla taalibe lii rek la am am yàlla may ko defal ko xéewal gu mu mën a sante ndax euh, yàlla suñu borom sax daf ne sant leen ma dolli ko yàlla mayee dooleel ko yàlla suñu borom sëriñ Tuubaa ñoo ko dooleel ba tey mbir mi egsi fi mu egsi wax dëgg yàlla euh, yéem man day personnellement yi yéemu damaa gën a yéemu ci sëriñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg képp ku ku wu ci mbiram boo ci dëggoo sax ca wallaahi doo ci rus ñun de tey mbég la ñu am mbégte mu rëy rëy rëy rëy xanaa dañuy di waxati rek jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Fallou ndax lépp lu mu am rek moom bëgg Serigne Fallou moo ko may naka dafa jeex Serigne Fallou yàlla boole ko ak jëwriñam mu Cheikh Ahmadou Mourtada Fadilou mu. am ñàkk sago ñàkk sago goo xam ne gi dafa jéggi jéggi dayoo xanaa di ko ñaanal rek yàlla saxal la bésam bii muy gën di jëw ci kanam muy gën di jëm kaw jëm ca kanam barke Serigne Touba. waaw ñun suñuy kilifa ñoo fi jaar wax muy njaga ak laama ñun seen rakk lañu ñu mat ñu kilifa ba tax na suñu kàddu day gàtt ci li ñuy wax dafa am rek seede koo xam ne mënut ñàkk ñu seede ko ndax ñun sëriñ tubaa rek la yaakaar moom la ñu am mooy sunu ndëgër laay te njaga dox na doxin boo xam ne ku nekkoon ci yoonu murit di am looy naataple léegi war na laa wóor péng ne lu Serigne Touba képp ko topp ci kanam nga jëm ndax metti woon na lool jafe woon na lool wéetoon nañ ci lool waaye sunu borom moo bindoo noonu man amilan saalihan fali nafsihi la wax boo ko liggéeyalee mu fay la kon ñun Serigne Touba rek lañu yaakaar sunu waajur yi ñoo fi nekkoon bëgg sëriñ Touba di wax Serigne Touba amul morom biñ koy wax boobu jafe woon na boobu kenn gëmugul woon loolu waaye ñun ñi nga xam ne dañ ko daa dégg te xamuñu woon lu mu doon léegi leer nañu ne Serigne Touba amul morom loolu nag leer gim ñu leer noonu la ñuy sàkkoo ci sunu borom mu ña mu jéggal sunu wayjur yooyu defal leen tawféex defal leen jàmm fa ñu nekk ndax ñoom ñoo ñu nàmpatal ci liggéeyal Serigne Touba. barke Cheikh Ahmadou Bamba Alé Samba Gueye laa tudd. dëkk Kaolack di doomi ndey ci Njaga Njaay ndax sunu ñaari maam yi bokk ndey ak baay kon nag sawar naa lool wax ci Njaga ndax Njaga dey rakk ju mat rakk Njaga taalibeem dafa fës Njaga li olof Njaay di wax ni dëkk ci géew taxu la mujj a géew moo daal Njaga ñun ci juddoo ci mudu gi lañ juddoo ci la ñu yaroo ci la ñu màggee mais njaga alhamdulilah rabil alamin dafa ñëw raw nu ñun ñëpp moom nee na ci ñun lay jëlee référence kon nag bul bi tourné na ñun ci moom la ñuy jël ndaxte lii njaga murit ak moom taalibeem gi mu doon dogu na taalibe gi mu doon c'est sincère boolewu ko lenn lépp sëñ fàllu la kon nag ñi ngi ñaan bëgguma guddal ci darajay Muhammad sallallahu taala wa sallam barke Sëñ Fallu lii muy lii lii muy def yàlla na ko yàgg a def ci barke siñ Fallu te du ma ko ñaanal li Sëñ Fallu dana am ndax sa sëñ sama bopp bii Sëñ Fallu teg na ci teg na ci loxoom ne siñ Fallu suñu kër la daan wàcc ci Kaolack daawul wàcc fenn fu dul suñu kër kon nag bu ma ko ñaanalee ci barke Sëñ Fallu dana ko dal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla wéral doomi ñay nak doo koy ñaanal reuy da koy ñaanal mu gudd fan woor na ma ne bu bu ko yalla may fan gudd wër gu yaram lepp lepp lepp lepp ci mourid gi dana dana dana teg ci loxoom inshallah ci tok ci loxoom ci mbokk gi ndax li muy def ñepp xam te xemam tend ko ba ñi nga ci ñom ñepp ñu wusi ko rabbi bima yasrun asana khalfaja بجاي أفضل لمن للا يخل جهان ربي بما يسرون أسان قد فجها بجاي أفضل لمن للا يخل جهان حمدي لرب كريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتيا ملان محمد صلوات الله في عبد علي في اسمه كل بك الهان أدعو إلى الذين أمد معيبه لجملة الخلق من يختار من برأ ناجيت جل ومن وكرم من تكريمات وقل لمن لخ البريان رحمن وابل الجميل الخلق رحمة من يغني النسر من قرآن خران هتمة المصطفى عن كل مفسدة والتلمي خلقيا من جد بدأ يا مالك الملك يا من جل الخوادم إرام جميع الورى يا هادي الردان يا مالك الملك يا من جل خود ارحم جميع الورد يا هادي الردان ما ما خنان القلب من درر بجاه عبد لمن للايق خلجان ما ما خنان والقلب من درر بجاي أبدا لمن للائقا لجا همني وسوري لما كل بسارة لو أريد دون سوء عند سرسارة همني وسوري لما كل بسارة لوريدن دونسو تنين سرسارة لوسنا وريد واني بلا سخات المسخد لي من بني ديمان أنسارت لله كل لدى أمر مكرمات من الدلنا وفي هجم من سارت إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيار دي فارخو دارين أو سارت إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيار دي فارخو دارين أو سارت أدي برمتوا